Agrofis Déco bi ngeen àndal ñaar fukki at ci moo leen di delloo ñu kël di leen may seen revue de presse. yéen kay yi ñu ànd ci ak El Hadj Ahmed Aidara. bismillah. cay troisième mandat bi fu mu ñu dañ ko fiy tere de termine kaay ne maître Moussa Diop day directeur général u Dakar dem di waaw dàq nañ ko allahu akbar ca troisième mandat boobee demoo ni day fanweeri fan ak benn cooro décembre 2018 waaw Macky Sall kon bi muy ñaareelu mandat bi ah moom président Macky ci kanamu fukki million ak juróom benn ci ay sénégalais day la leen xamaloon carrément leen troisième mandat mënuma koo ko lool ministre de la justice am woon di Ismaïla Madior Fall dëgg la yéeni kaa ngi gis nga tey ji lee waaw Macky Sall nag boo ko ca laajee mu naan la duma ne waaw duma ne déet ah ba mu ko tamit muy dàq ay directeur généraux kii nangam sangam day ah mbir mbir mi nag nekk nii nag eh, eh, eh, samp laaj nag jot na samp laaj nag jot na sursaane gis nga troisième mandat boobu poson la dëggantaan dama ne la xaj bi nga xam ne nag maanaam moo matoon kon kii di Moustapha Diakhaté ak Sori Kaba waaw xaj boobu mat na maître Moussa Diop yéeni kaa yi daaw da càmmi ne waaye xam nga lan moo ragalloo waaw xaj boobee lan moo tax ba matul Mbaye Ndiaye lan moo tax ba matul bugg a ñoom ñi nga xam ne kon nee nañu kii di Macky Sall mën naa am troisième mandat xaj ba kay daa nelaw ba yànd or professeur Moussa waaw ne parce que mbir dafa am lee soxul lëndëm lëndëm a nekk ca biir ba président Macky Sall ci boppam waaw bëggul ku fi wax ne troisième mandat dañ ko fiy tere dañ ko fiy ne troisième mandat ba dee dàq na kon maître Moussa Diop le témoin ko wàcce l'observateur ne tey ma wax nag lan moo xew ci dàq maître Moussa Diop ah troisième bi dañ koo daafantoloo noonu kese rek ah waaw waaw dama ne la taabalu président Macky Sall kon dañ faa teg ak rapport situation financière ak sociale Dakar dem dikk googe direct news ne ñun de fa ñu jëlee suñu xibaar waaw ay weer a ngi ni la diggante président Macky Sall ak maître Moussa Diop mi mbir mi neexatul de déedéet léegi nag maître nag déclaration yéenekaay gi ne waaye gis nga président Macky Sall waaw yoroon na ci daabalam jooju ay dossiers yu doy waar ci yoru nuuk Dakar dem dikk dama ne ban ministre mooy xaru di wax ci troisième mandat bi nga xam ne kon dañu koy tere Abdoulaye Xuma day affaire Kaolack waaw ci réew mi ko ne Sénégal dong day ngay gis ab li taxaw fale taxawaayu conseil constitutionnel quoi yow ab fonctionnaire wala ab général nan ngay mën a araamale wala di daganal ab candidature président a a ko waaye ma nga koy daan le soleil yéene kaay ne bun Xataab si la day moo remplacé kon maître Moussa Diop ci Dakar Dem Dikk laas ne troisième mandat ba day yóbbu na Moussa dëgg la Dakar Times ne dama ne Macky Sall nag daqaat na keneen koo xam ne kon moo ko doon défendre dëgg la du Moustapha Niass doo Aminata Mbengue Ndiaye dama ne la Macky Sall mi la mu dàq tey bokkoon na ci ñi raar jiite parti bokk Macky 2012 di dem ci télé ak di défendre président Macky suñ politiciens yi lée ñi ngi falaka folli waaw ak troisième mandat ah, ndox maa ngi ñuy rey de askan wi vox bobli ne xoola ca Cambérène gëlay benn xale boo xam ne kon ñaar fukki at ak ñaar donga la ah, a mii rek daanu ci kawam mu dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laas na dëgg la de xale bi kay am na fanweeri at sa footballeur la woon ci Ndakaaru njaay jël ci région yi waaw mais attention de musilba mbaaba kuma de président Macky Sall kay mujj naa fëkk 2020 yi lée moom président Macky Sall yemu ca ndaxte bëgg na daar daar ñu daal koy jébal nag rapport détaillé programme décennal fukki at yi lée 2012 2020 ci wàllum inondation yi ay milliards de lañ ta def moom président Macky Sall yemu ca ndaxte nee na leen def nag farata gaaw faxas inondation yi ci quartier yi lée bokk na ca Kaolack de ak Ndar Kaolack Ziguinchor Guédiawaye ak Pikine Abdou Samad Diouf coordonnateur ngir développement banlieue bi ci tribune yéene kaay waaw ci ay ne ci mbedd la ñuy toggee mi la ñuy lekkee allahu akbar la ne dama ne def nañ yëmbal nord def nañ yëmbal sud laa la wax Malika extension def nañu Camille Basse te Kër Massar waaw mais am na ci ay njaboot yoo xam ne ci biir ndox mi la ñu ne sonn nañu lool lool lool ña sonn kay mooy liggéeykat yi nga xam ne ñoo ne ca King Fahd Palace méridien président waaw ubbil les ko yéene la wax ñuy liggéey fii seeni njaatige di leen xoñañal am na ñoo xam ne sax joxe dépense bis bu ne mënatuñ ko téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ñoo xam ne ay soutien de famille maara day taali man Véronique mi la tabaski bi am na ci ñoo xam ne sax maa leen jëndal xar liggéeykatu King Fahd Palace yooye waaw Véronique nee na ñun xanaa dañoo yaakaar ne dañoo am patron boo xam ne kenn du ko laal Racine Sy lu ko neex lay def laa wax te du ko ca fekk critique yéene kaay ministre ba defagul déclaration de patrimoine am day ndeke Cheikh Oumar Anne la box eh, boobu li ñu dëgg ministre enseignement supérieur waaw ñoom xam leen nañ ne Cheikh Oumar Anne dem na kon ca of nag jooje ndax dafa porté plainte Mansour Faye Diop si Rayane Hachem ay eh way samba naar ba ca ceeb ba waaw le témoin yéene kaay ne Serigne Mboup day ñoom Ablaye Sow chambre de commerce waaw yekk nañ ko lu mel ni xeme biraan yaayaa wan ci évidence yéene kaay waaw président chambre de commerce a ah, nee na luy njiik ñetti ñi ñoo yàq bërëb bi laa la wax de ministre commerce Aminata Assome Diatta waaw ak Matar Laax ak Ousmane Mbaye ñoo fi bëgg a teg ay nit ñoo xam ni xoos naa ñàpp te loolee wi lañ ne diix daal di koy jël bëgg a yàq privé bi ngeen vox fobli ne ànd gësëm day opération goxi seeni ndàmpaay danañ leen ko jox de ñoom waa kër docteur waaw source ané corona ga dikkati na de mar di tali waaw ñetti ci ay doomu aadama ñàkk nañ seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun enquête yéene kaay ne élection locale ya day waaw ah, ah. moo ciy profito ah bi mel ni luñ jëm demul dikkul ñi ànd ak Macky mi lé ñoom moom yorin gu bon ci mbas mi moo leen sonal local yaa ngi ni lée nekk ci guddi gu bët setagul kenn xamul lii lan la professeur Moussa Diaw waaw nee na gis nga élection yi bu ñu ko amalee dat ba nga xam ne moom lañ ko jàpp opposition bi danañ leen dóor ba ñuy bëgg a dee opposition bi ngeen gis ni Macky Sall dana leen dóor dóor dóor ci élection locale yi ba ñu wulee njaay <laughs> na leen rey waaye ak lu Macky Sall dóor dóor dóor dóor dóor dóor dóor opposition bi waaw suñu pétrole bi du ñu nangu mukk ñu ci dóor déedéet parce suul gaz du ko tere xeeñ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 loolu ci làmb ji lañ ko daan faral di gis boo defee am njàngat. boo mhm. xam ne neexul waa kër Balla Gaye. supporter yi mu song la. nga wax loo xamante ni neexul waa kër Modou Lo yi. ñu song la ñu song la. dégg nga. Mhm. waaye léegi même ci ëttu politique bi loolu. mais li professeur bi wax. dara da ko mënul dindi. dara mënu koo dindi. opposition boo xam ne réew mi yëpp ñoom ñoo mànkoo ne. Mhm. dañ leen a jëm pikiir. ñenn ñi ñii est-ce que nekkul ne dañuy dile dañuy teg dil ak ñii. pikiru nelawal. waaw pikiru nelawal laa wax. wala am ci ñoo xam ne tam nelawal gi ñoom ñoo ko tey inondation yi activistes ñoom ñoo ciy wax wala sax ñi bokk ak ñoom alaaji looloo ma jaaxal. Hmm. barki démb laa dégg Ablaye Xuma di di di kaas ca Kaolack. Hmm. ñi bokk ci ñoom biir affaire di kaas ak a naqarlu di wax ci wàllum inondation waaw à la place des des des des opposants ñoom ñu war di alerter ñoom ñuy war di wax lëkkaloo ci ak société civile ba. mais bu ñu demee ba ñu nekk parti au pouvoir ci boppam di wax ne ñoom seeni quartier yenn jafe-jafe yii la ñuy dund te nguur gi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko jiite. ñoom ñoo ko war a defar. bu dee yow benn langage nga am. parti yooyu kay moom bu professeur Moussa Dia waxee ne. buñ ko tëggee suba suba suba suba suba suba suba suba suba Macky gañeeti leen. ak ci complici complicité wu yenn sénégalais. sénégalais yoo xam ni kenn xamul liñ bëgg bu élection jotee nga toog ak ñoom werante ba ni saay hmm. xuloo ga mel ni tulleeg màlle buñ voté ba ci ëllëg sa laa lay wax ni ñoom ñoo ñëw eh, taxaw la ci njëndum ordonnance geeg coono ak jafe-jafe goo xam ne maara di ba nga ne xanaa nekkul ni kii moom moo ne woon diw mi moom moo fi gën xanaa moom moo fal diw ah waaw sénégalais tamit alaaji sama genre gi dañ cee bëri de. démb it ah, maa ngi koy wax de. ñoo xam ne bu bëccëgee ñu wax lii te bu guddigee ñu def leneen. quartier yi gën a sonn ci inondation yi. ñoo fal ñi fi ne. waaye demal tënkee. dañu faa gagné à cent pour cent. alaaji rif électorat wu Rufisque bi. ci 2012 bii. amul ci ñeenti département yi nekk nekk nekk nekk nekk ci région de Dakar. Uh-huh, uh-huh. li leen inondation def diggante daaw ak ren ñu jiin ko teer gi. Uh-huh. kenn xamul lii lan la. kenn kenn kenn kenn xamul lii lan la. moom kay ni woon. Uh, urne yi waaw noonu la ñu inondé woon urne yi ci. urne yi ni ñu inondé woon euh, euh, euh, en marron beige noonu la ndox mi ñëw inondé noonu en marron beige ndax latérite ga. ndox ma jaxasoo ba ñaañoo mel ni chocolat. Mhm. waa Tëngéej ne ca biir. li ñu voté ma kii ëpp na. Mhm. <laughs> yaa presque soixante pour cent. Tëngéej Tëngéej dañoo voté ba ëlbatiku. waaw moom dañoo fal moom. gis nga coowal fichier électoral bi alaaj ñuy wax nii. Mm. d'accord naa de. fichier dafa war a leer fichier dafa war a nangam fichier dafa war a nangam mais gis nga alaaji gis nga population bu décidé. fichier fichier électoral rek xuusmaa ñàpp ak sàcc moo ci bokk yem. am askan wu jóg décidé alaaji. xajuñ ci kenn. xajuñ ci kenn. Mm, mm, mm, am na fi ay gox yoo xam ni waa waa APR xamoon nañ xel. ne fii du yomb. gis nga gars bu ñu leen bu ñu ñu gañewul fii ñun du ñu leen fi gañe il savait pertinemment que ni Ziguinchor Ousmane Sonko da leen fay gagné alaaji luñ mën def nañ ko fa Baba Diaw nee na meeting bi Macky Sall organisé soor amul mais xoolal xoolal dañ koy ñàkk ndax nu askanu Ziguinchor a décidé gis nga alaaji euh. Touba bu ñu la waxee liñ def ci ay transfert d'électeurs liñ fa def ci achat de conscience liñ def Touba ba ci ay projet euh. en commençant par Ila Touba pour l'électorat mouride amul lu ñu deful ba jël ay mbàkke mbàkke jiital ca kanam mais xoolal Touba dañ ne doo leen fi gagné. Hmm. détermination. ville de Thiès lu hmm. luñ fa deful dañu koo fàtte. mais xoolal. dañ leen ne ville bi xëj na département bi ngeen gañe yéen ak seen i directeurs yu bari. ak seen i ministre alaaji. Hmm. ak seen i député. xëy na da ngeen di ñàkk. déggoo ma de. te bu sàcc di am normalement ñoom fi ñu xam ne fa lañ gën a néew doole. Mhm. mooy commune Thiès. dégg nga. waaw commune Touba. Mhm. mooy département Mbacké. Mhm. mooy Ziguinchor. non fii ñii mënuñu muus ak mu tër bi ba duñ fi am jafe-jafe. bu ñuy sàcc fa la ñuy sàcc. bu ñuy loo xooli ci fichier bi fa lañ koy defee ji dégg mais mënuñu muus ak mu tër bi ba gañe. waa ji ba mu ñëwee ba léegi mënut a gañe Bawol. la leen di sagal sax muy njaareem mais Mbacké Touba. daanu projet yi mel ni tulleeg man le bis bu nekk ñu def yëfu nandite mais de ci suuf askan wu décidé alaaji moom moo mel noonu munu xoolal munoo def lu leen convaincre askan wu jël décision naxe gi ñu ba ko Macky Sall munul nekk ci mim réew alaaji jëli mesure jëli mesure euh. jëli mesure tape sur la table jëli mesure tape sur la table jëli mesure yow nee nañ démb sëñ Mbaye Thiam la doon waxal ci inondation yi programme décennal deux mille douze deux mille vingt deux alaaji deux mille douze ba deux mille ñaar fukki at xanaa ñaari at a des waaw wax ma bi ki toogee ak léegi benn at boo xam ne dafay am ñu ne ren inondation tarkala lu ñuy nettali la fàtte nañu ko jotagul xaju fi démb ndox maa wàcc Cambérène ba nit dee Pikine Guédiawaye gii mu tudd Ndar Ziguinchor xaju fi Touba nit ñaa nga ca biir ndox ma te nga ne def nga ci inondation sept cent milliards at bu nañu indi plan Orsec farata la daar daar génne leen matériel yi sóob sol ay dàll sapeur pompier ministre bi wàcc xuus responsable politique yi wàcc xuus xuus xuusaat xuus xuusaat maye ceeb maye diw topp ci ginnaaw topp ci ginnaaw cokkaas ñaari yoon jéggi jël avertissement vingt cinq pour cent duggaat <laughs> génnaat laal suuf sottee saafara diwoo kanam duggaat arrière vingt cinq pour cent avertissement duggaat. nawet bi nawet bi waa ji jeex nga def lu ay. publi oh! fay ay publi reportage. ay publi reportage. woon nit ñi nii lii lañ ci def. merci beaucoup lii lañ ne lii lañ nekkee woon ci jamono. parce que yàlla ji taw looy. Hmm. yàlla ji tawaatee weeru après après après la pluie c'est le beau temps de ah, ñun de expression boobu doom ñun Sénégal xamuñu ko ñu moom après la pluie moom alaaji le mauvais temps rek ah, fii calvaire souffrance sonn torox ba ne tottu totoral mais dara ñi ngay waxal ba xubi daas boo dajeeg ñoom ci mbedd mi ñoo lay saaga ba nga ne tot mm. te naan la bàyyil nguur gi nguur gi mën nañ leen a bàyyi alal ji te ñun benn benn ñu teg leen fi waaw ñaar ñu leen di suñu alal waaw ke gën a tuuti ndomba tànk ci nguur gi ab policier mi ngi nekk ci wetam fetal bi policier bi dugal ci poosam sax mu koy di ko garder alaaj mm. ñun ñoo ko jënd ngeen mm-hmm. mm-hmm. na ñii daal nañ leen leen lalal basan ñu ne déet ni waay yow Macky nga bëgg réew mi yëpp ànd ak yow yow bëggoo opposition bëggoo société civile yaa ngay féewale opposition ngir ñu gën a tasaaroo pour lan yow daal yow daal ñëpp ànd ak yow <laughs> ah nit ñi sonn nañ alaaji ndox mi nit ñi sonn nañu seen óog yi nañ ci wax nit ñi sonn nañu am na côté yoo xam ne alaaji robinet dañ koy dégg rek bu ñu la ko waxee ci Dakar da nga naan du dëgg Fadja moom fajaa moom dama man man dama commencé di douter ne est-ce que nekkul ne dafa am fuñ ko tabax ci ab montagne wala wala tu tu tu tu sonné si moom yeggu fa. Fadja mu ngi ci biir Dakar gii de mu ngi ci Dakar gii de. man de Fadja de moom est-ce que nekkul ne dañ koo xaw dañ koo fàtte. wallaay fàtte wuñu ko de. est-ce que nguur gi xam nañ ne Fadia mi ngi fii ci Ndakaaru ñoo la ko gën a xam ci département bu tudd Guédiawaye est-ce que xam nañ loolu ñoo la ko gën a xam ndax ñu bëri ñoom nag ah xaju fi di ah fàtte xaju de ñu bëri ñoom fa la ñu luwee woon man ah, ah, de man ah, de waaru ci yàlla ci ñoom fa la ñu ñu bëri ci ñoom fa la ñu luwee woon ñu sonn nañ de am na léegi benn tendance bu génn boo xam ni. président Macky Sall ci boppam loolu rek war na cee def sondage gis nga laaj léegi nit ñi. soo amee malaat ba mu na a desal loxo xam na léegi lu xew. léegi télé ngay woo wala télé ci internet bi yaa yaayam wax dëkkandoo yi wax nga publier sakku ndimbal ñëw leen loo xam ne alaaji réew mi nit musul ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk wala dund jafe-jafe jafe-jafe jafe-jafe mu tar tar tar ba nga ne léegi nañ leen woo léegi réseaux sociaux yi ñuy ñëw filmer ñu suñ malade yeeg yooyu. wallaay ndeysaan. wallaay tendance boobu léegi moo xew. gënalul ñu koy def de. déedéet gënalul la ilaha illallah. gënalul ñu koy def pexe ñàkk pexe pexe laa laaj. amul pexe ñàkk pexe pexe la. wallaahi. parce que démb damaa dem foofu ci unité 3 ci benn ci benn famille. mais xale yi élan de solidarité alaaji la ñu def. jàmbaar yor xoolal yor ay bool ak ay leket. alaaji jàmbaar lañ di ketal seen frère jàmbaar lañ loolu loolu nag loolu nag xam nga nit tamit boo ne da nekk ci ay instance de décision hmm. waxuñ ne yow mun nga faj ñëpp de parce que muy ñit ñi ñëpp ku ci ne am nga ay mbokki feebar te mënoo leen a faj hmm. mais yàlla minimum hmm. yàlla minimum yi feebar faju xiif lekk dëkkuwaay da nga koo war a régler ci même réew américains yi ñaar lañ njëkk a réglé bañ ne putti juddu démocratie ak lekk. gis nga alaaji nit ki bëgg a wax dara. lekk day am fu mu ko waxee. xiif lekk. Mm. gis nga ñaar yi. di nga di nga yéex a coow de. da a coow. waaw doo gaaw indi fitna de. déedéet déedéet déedéet déedéet. bu mënee génn li nekk sa ah. te dara du ci fekk. yii xew yii xew ay mal yëpp li ko indi alaaji. boo tawatee faju lii dong la. waaw ñàkk am. kese doo ko fi waxee. moo tax bu ñu bëggee wax ne man gis nga man am nañu d'accord ne troisième mandat bay tax ñuy ñuy bule gars yi de mais war nañ ko war nañoo enquête parce que diggante Moustapha Diakhaté ak Macky affaire bi dafa yàgg a dafa yàgg a de ñu naan première dame bi mujj na ci dox ay tànku jàmm ndax moom waaye Moustapha Diakhaté xajam xajam bi yëpp nag mooy Moustapha Diakhaté lépp lu mu xalaat ne lii nekkul yoon da koy wax waaw loolu ca jamonoy wàccoog alternance ga ak ak ak Ablaye Wade Moustapha Diakhaté d'ailleurs loolu ko fa jëlee. loolu da ci nite la bokk sax nag. dégg nga loolu daa yàgg ci moom de. loolu ci. ba troisième mandat bi ñëw ñu ne c'est l'erreur de trop. mu hmm. waxee ko seen TV. Sori Kaba. Hmm. moom sax xëj na ñu wax ne dégguñ ko fi woon coow ak Macky ba troisième mandat bi dëkk. Hmm, maître Moussa Diop nii coowal Dakar dem dikk lii géntoon nañ ko moom ci boppam reconnaître na ni la boîte a des dettes. ay bor ñu ngi dund ay jafe-jafe ñun tamit ñoom tam yoreel nañu ñun tam yoreel nañu barki démb la ko doon wax ci source A ak wax jafe-jafe yi syndicat yi Dakar dem dikk di yëngu subaa ngoon gu dégg ba cëg dégg nga ñenn ñi nag jàpp ne loolu loolu loolu loolu yàgg naa xam ne day dem léegi nag il faut mu fu ko taf pour doon victime dégg nga loolu uh-huh. waaye li yëm nit ñi mooy seetal ma ki jafe xam nga moo tax setal ma ki jafe. Mm. dafa am ñaar ñu ko fi wax dara fekku leen ci. bu ko moom xëj na la ko ca fekk yàlla la waaye du Macky moom fi njëkk taxaw ne Macky Sall mën na am troisième mandat te nekkoon député. Mm. Macky mënoon na instrumentaliser comme ñoom ni ñu koy faral di defee fii lañ dàq dàq nañ Khalifa Sall alaaji. waaw dàq nañ ko. Mm. dàq nañ ko ci assemblée. Mm-hmm. mënoon na wax majorité bi kon ni leen bulee leen bugaa waxoon naan troisième mandat bu ci kenn wax defu ko Mbaye Ndiaye ministre de la alaaj da dégg ne dañ koo dàq. kañ la fi bëgg a daganal troisième mandat wu Macky. ah Amadou Ba ci boppam sax lim ci wax noonu c' est clair obscur là naan Macky ba deux mille trente cinq yow waxoo wii waxoo non da nga ko waroon a dàq waa mi xanaa balaa ñoo dàq kenn alaaji dàq makki <laughs> biñ ko ci laajee lu tontu du ma ne waaw du ma ne déet war nañoo tontu loolu. man ko waroon a dàq moom dañ ko waroon a dàq. <laughs> déedéet bu dee ko wax ci mandat bi nee na bu ci kenn wax léegi kon boo ci waxee. un bien comme en mal mais dañ la war a football boo ci lëndëmee yéen ñu football la da war a wax wax ju dëju wa ilaa nga noppi jeex na mais Macky moom mënul fexe ba mim réew du fi dégg man mandat ndax dañ ko fiy tere te suur gaz dam du ko tere xëy. suba. ñu ngi lay jaajëfal El Hadj Ahmed Aïdara jàng jëf mbokk yi Thiané FM xibaar yi jeex na ci kanam tuuti daañu dellu si waat ak yéen ci tës yenn leen ak jàmm.